asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi kontaan nañ bu baax a baax ñëwaat ci seen deuxième numéro weekend people weekend people mooy émission bi nga xam ni lu leen riir rek ci people dal ci semaine bi ci weekend people ngeen koy amee muy daw nag samedi ak dimanche waaye it euh, via YouTube di ngeen mën a am li nga xam ni moo di weekend people lépp lu leen riiroon rek ci célébrité yi lépp lu leen riiroon rek ci nit ñi nga xam ne dañoo siiw seen activité yi ñuy def seen vie yi wala it lar nañu def euh, ci euh, seen bis yi ci weekend people lan la koy weekend people nak di nuyu té yépp képp tok ah, jakkalo télévision ah, on téléphone portable weekend people nuyu na la it madame gay mi koy présenter di lay nuyu ni la loxom vous sa vous ak weekend people ñu ci wo ñépp ñu ñëw ñu waye it ñu sponsoriser euh, baax it borom entreprise yi jaaykat yi ñi nga xam ne ñu ngi ci yenn ak ci waaye lu mu mën di nekk rek te bëgguma mu siiw da ngay ñëw fii ci Prestige TV ci Prestige TV waaye it ci Weekend People ñu daal di koy fësal ba mu fës ci loolee dañuy doore suñu euh, Weekend People ak people bi di Dieyla euh, ak Wally Ballago Seck Dieyla ak Wally sekk Seck voilà euh, gisoon nañ nag ci inauguration stade Maître Abdoulaye Wade bi kii di Wally Ballago Seck di defoon benn clip daal invité artistes yëpp ci clip boobu nag Dieyla daf ci bokkoon euh, ci loolu bi mu ci bokkee nag euh, ba loolu jàllee Dieyla euh, dafa gërëm kii di Waly Balago Seck sant ko gërëm ko ndax nee na Waly daf koy jàppale daf koy toppatoo te loxoom it mosu tegee ko ci moom ba sax am na benn terrain boo xam ne moom la ko may ñu koy ñaan nag mu muurloo ko mu nekk aussi lu ko jik buñ jógee ci ki nga xam ne moo di Waly Balago Seck ak Dieyla dañuy daal di dem ci kii di Rihanna Rihanna ni aussi du jukki ci di ñu wan saa su ne fan la ëmbam bi daal di toll xam nga Rihanna un mu amagul doom day doog ëmb moo tax muy wane saa su ne fan la ëmb bi toll dañuy dem xooli vidéo bi rek te ñëwaat ci plateau bi. ngi noonu gis ngeen ni yaana xam nga dëkk bu nekk rek ak ay réalitéem dëkk bu nekk ak ay réalitéem dëkk bu nekk rek ak lañ fay baaxoo def moom génnee biiram sol lu sexy wane ni tollu na fi jël chaîne takk ko ci biiram loolu amul benn problème waaye nag xam naa bu doon Sénégal moom leneen la ñuy waxaat ba mu des ay affaire ëmb kii ëmb kaa Rihanna ñu ngi koy ñaanal nag yàlla may ko omi sedd guy na xam naa yenn moom jàpp naa ni célébrité yi rek ñoom ñoo ko daal di sañ bu ñu jógee ci Rihanna dañuy daal di dem ci Barbie Noire Barbie Noire nekk tiktokeuse waaye it influenceuse moom nag daal dina dégg ay xayri ñu ko ci ñaanal sëyam bu baax kenn mu sañse jaune jaune bu rafet gis ngeen ko noonu ci photo yi bu rafet la daal di se daal di yor li nga xam ne moo di téere alxuraanam di ñaan ci yàlla di di di ko ne di ñaan di xam naa sëyam bi rek lay ñaan yàlla barkeel ko Prestige TV mu ngi koy ñaanal sëy bu baax keel waaye it yàlla may ko ci njaboot gu barkeel incha allahu rabbi ci loolu dañuy daal dem ci couple nag ba tey dégg nañ fi ay coow coow yu bëri bari bëri euh, lu naan ay euh, ki nga xam ne moo di borom këru Mia euh, di Abdou daf daan na dóor kii di Mia Mia nag ci loolu coow li nag bari woon na trop ñuy génn di wax naan dañuy waaj a tourner clip wala waaju ñu tourner clip loolu nag Tange Tandian moo ci génnoon daal di ciy wax indi ci ay leeral ni yàgg nañu am ay ay violence conjugale ñoom ñaar seen diggante ci loole nag ñu ni tas na ñeenti yoon bi mu tasee ñeenti yoon ba bu mujj bi euh, dafa tàggu jëkkëram ni ko maa ngi dem jënd ci ay tissu mooy ci ñaw yi ñuy yi muy faral dekk di ko sol mais jëkkër ji dañu ko doo génn ak li nga sol ndax li nga sol euh, baaxul ci loolu ñu xëccoonti ba mu daal di xëcc saagam ñu def ko dóor ba mu yaa daal di dem ñibbi fi nga xam ni moo di seen kër mu indi nag coow lu bëri mais nag amuñu ci woon lu ñu ci leeral ba euh, ba fan yi nag la gisaat ki nga xam ni moo di euh, couple Mabo daal di biral benn photo euh, daal di am lu ci wax wax ci wàllu silence loolu daal di wane ni ñoom ñaar amuñu benn problème ci li ñu ci photo bi li ñu ci bind dañu ñëpp jàpp nañ ni nag amuñu benn problème ñu ngi seen jàmm ñu ngi seen salaam juste rek couple boo gis dafay am problème problème ñoom ñaar ñàkkul ni dañu am ay problème ndax couple yëpp dañuy am ay problème ñu leen di ñaanal ñu delluwaat ci jàmm ba nit ñu commencé tamit di clash ki nga xam ne moo di Tange Tandian naan dafa war a bàyyi euh, di wax loo xam ne leeru ko Tange nag daal dina defaat beneen sortie ci émission euh, ba mu nekk ci béral ay eh, li nga xam ne moom moo di eh, information yi waaye it ay preuve am yooyu moo di eh, dafa woo kenn koo xam ne moo bokk ci famille Mia ba ma mi ba Mia jugee ci kër Abdou ci moom la daal di dem kooku it daan na ci indi ay leeral daal ni ki nga xam ne moo di Mia dafa ñëw bi mu ko gisee mu ni ko yow Mia di nga solo pour lan la kenn xamul looy ndulool mu ci la ko expliqué ni dafa jote ak boroom këram borom këram daf ko dóor moom it mu daal di jàpp ci loxom daal di koy yóbbu eh, ci wayjuram bu jigéen ba wayjuram bu jigéen daal di jàpp ci loxoom yaa yóbbu ko di ko nag jigéen lañ la may te dooloo wuñ la eh, saagaloo wuñ la daal di roñ ay bagage doomam daal di dem ñibbi eh, mais nag Tange tamit tegaat na beneen preuve ci koo xam ni jegeñaale la ci kii di abdu di jëkkëru Mia nee na kooku nee na nag toog na ak Abdou laaj ko ba xam Abdou tax nga dóor ko mu ni ko dóoruma ko juste dama ni ko bu mu sol lii mu ni loolu lay sol ma xëcc saag bi saag bi rek laa xëcc daal di koy tegee de côté mais dóoruma ko moom nag moo dem ni dañ ko dóor voilà loolu la daal di tange daal di xamle daal di ñuy wër naan juste dañuy génnee clip wala it euh, dañoo bëgg buzz nee na comme te dañuy génnee clip nañ toog di xaar clip bi ndax xam na ni clip boobu duñ ko mës a génne ndaxte li nga xam ne moo di violence violation conjugale bi nga xam ne day am ci diggante Mia ak Abdou lu rayal la tam moom li mu koy li muy wax teg fu wóor loolu la daal di xam le nag moo tax mu daal di indi ay preuve nee na nag ñi nga xam ni dañ doon wax naan Tange waxul lu am euh, ñaar ñooñu it euh, juste rek daa am luñ ci lu ñu nekk wala yi dañuy tourné benn clip ñooñu nañ indi preuve comme moom ni mu ko indi Tange nag loolu la daal di xam xamle ñuy xaar rek ba ba ba tey rek euh, ñi nga xam ne ñoo di couplement bo de ñoom ñaa ñu ànd def soxti wala kenn ci ñoom daal def sorti mën a leeral ni mel ndax ñu mën a xam euh, fan la dëgg féete bu ñu jugee ci euh, Tange nag dañuy daal di dem euh, ci kii di Abdou kii di Pape Amadou Sarr Pape Amadou Sarr moo nekkoon ex DG wu DER moom nag dañoo tekki ay ndombal tànkam waaye it bi muy tàggatoo ak ay éléments am nekkoon na lu diis waaye it lu daw yaram ñu dem xooli vidéo bi sa ñëwaat. il gis ngeen ko noonu mu nekk nag lu daw yaram franchement ñu koy ñaanal rek euh, fa mu fa fa foofu ne mu jóge yàlla def fa jàmm waaye it fa muy fa muy dem wala fa mu war a dem après incha allah mu nekk fu gën fa mu jóge mu nekk lu daw yaram nag ah, xam nga nag sa patron euh, bu ngeen sekkee jàmm ba mu ba ñu tekki ay nombal tànkam bu dee dem day nekk lu diis xam naa nag defu fa fa mu doon liggéeyee defu fa lu ñaaw waxu fa lu ñaaw moo tax euh, ba muy dem ak ay. élément am nga xam ne ñoom la daan liggéey yu ndool mu nekk nag benn tristesse bu mag seen diggante ba ñenn sax daal ci jotatu ay rangooñ euh, kii nga xam ne nag moo di Papa Thione di euh, Thione Balago sekk moom nag am na un an ci biir suuf le 14 mars ba le 14 mars un an la moo tax témoignage yi bari woon na lool Papa Thione deewam nag daal di bett ñu bari ñu bari ci réseaux sociaux yi euh, dañ ko xamee waaye rawatina nag ci euh, statut WhatsApp yi ñu daal di béral ni que Thione Balago Seck daal dina nelaw boobaak léegi daal dina def un an mu nekk le 14 mars ba le 14 mars 14 mars 2021 14 mars 2022 ñu ko ci ñaanale fa mu dem gën la ko fu mu jóge waaye it suuf yi daal di oyof lool ci kawam ci loolee dañuy daal di ñëw ci mariage ak ki nga xam ne moo di Bachir Bachir nekk acteur di joué ci téléfilm sénégalais yi xew léegi mu Bachir nag daal di na takk jabar soxla so daal na dégg alxayri gis ngeen ko comme vidéo bi ni muy défilé nii gis ngeen euh, Bachir daal na def mariage def mariage mairie daal di sol euh, lu am classe tenue traditionnelle la sol soxnaam tamit daal di sol robe simple macha allah ñu daal di feete li nga xam ne moo di seen mariage waaye it daal di feete seen union ñu leen di ñaanal sëy bu baax barkeel ñu daal di ci am njaboot gu barkeel ñoo xam ne ñu bëgg ci seen néegu sëy yàlla may leen ko te mu nekk aussi lu leen jikk incha allahu rabbi ci loolu dañuy daal di dem ci Pod et Marichou Pod nag daal dina toog ak doomam di seetaan nag moom li nga xam ni moo di match waaye nag li ñu ca jaaxal moo di match bi euh, comme dafa toog ak magum jëm bi dañ leen di bàyyi rek ngeen di découvrir vidéo bi ñu ñëwaat ci plateau bi. lii kenn kaay mu rëdd ko moom kese kaay mu rëdd ko.

des grands joueurs, des grands joueurs, des mots mieux aussi, c'est avec Baptiste Béguier et Aurélien Michon, et voilà. Mmh. voilà gis ngeen ko nonu ki nga xamne modi di pot gis ngeen dama don setané ak doomam li di match bi di expliquante ak mom kum ko togo ak mak mu nek lu neex nak motax ñu naan dom dafa neex waye dafa sax ci xol ci xolu ndayam kum ci xolu bayam ndax gis ngeen pat rek dal dina koy wané ñukay ñaanal nak doomam jojo momit dundu te barkel dundu ba di talal ay wéycuram bu jigen comme bu go di leen yobu makka fu ñu bëgg a sen dom bi rek inshallah yalla yeggalé fa bu ñu ci euh, pot dañuy dal di dem ci icon Akon nak euh, fan yi yëpp ñu ngi gis benn ciow bu ñuy wax naan euh, Akon City bi dafa am problème waye it dafa am xaaliss bo xamni mu ko yorel wa amerika motax tax Akon daal di daal di ci am lu mu ci def neena nak euh, problème bobu du senegal waye amerika la problème boobu Amérique la te Amérique nañ koy regle te Akon City bi li tax rek euh, déggatuñu woon euh, coowal Akon City bi moo di lii di mbas mi dafa bari woon euh, fii ci suñu réew di Sénégal moo taxoon affaire bi daal di toog ñu toog 6 mois dégguñu li nga xam ni moo di Akon City waaye Akon City bi nag pare na bu yàgg tax nag am na ay partenaires yoo xam ni ñu ngi à l'extérieur ñoom ñëpp daal dina ñuy ñëw adhéré ci li nga xam ni moo di projet boobu di Akon City ñu war koo def ca Mbodiène gis ngeen ci photo yu rafet yooyu xam naa incha allah foofu cité bi moom bu paree dina nekk euh, cité bu rafet ndax cité Akon City la ko tuddee mu war kaa def ca Mbodiène waaye it ñu jàpp ni rek Akon génn na te wax na ni euh, problème bi nekkul Sénégal mais problème bi euh, fële la euh, ca États-Unis te incha allah États-Unis nañ koy regle Akon City nañ ko xaar ci ay fan yu néew nañ ko xaar ci ay weer yu néew dina ñëw mbas mi rek moo ko daal di woon ci loolu yi ñu daal di ñëw ci Bathie Drizzy Bathie Drizzy nag xam naa am na ñu ba xamuñu kan mooy Bathie Drizzy gisuñu kanamam juste rek dañuy gis benn dessin genre dessin animé ñuy wane ni kii mooy Bathie Drizzy Bathie Drizzy nag mu ngi nii ci photo bi expliquer la ko waral mu daal di dugg ci réseaux sociaux yi waaye it commencé bindam bu bari boobu. nee na nag dafa nekkoon tee de Dakar euh, di font nii rek di toog euh, ci euh, coin am neen donte sax am na beneen liggéey boo xam ne mu ngi koy liggéey waaye it ne danaan toog ci coin di bind di dugal rek nit ñi commencé di ko partagé di ko partagé di ko dugal tee de Dakar tee de Thiès ba affaire bi commencé am yenn ampleur yi nee na nag biñ ko woowee daal di njëkk a signé moom contrat ci la daal di xam ne ah li kat nekkatul ay caaxaan contrat boobu mu daal di ciy gagné 150 000 francs ci la xam ne ah moom mi yëngu ko nit ñi bëgg nañ ko nit ñi sopp nañ ko ba nit ñi sax ñu ngi signanté ak mom li nga xamné ne moo di euh, partenariat ci lool nak ci la wax ni euh, euh, paré na ta nak dootul defati wala mu wax lo xamné waru ko wax dootul def lo xamné day yak image am buy bind foog mu xam lu muy bind parce que légui monde entier mo koy sétane ta nak bind bobu dal dina ko yu fu kayu njox tam ndax voyage mi dem yépp à travers bind yoyu motax mu dal di koy am mom bàccu dress ta te nag la fa taxone bugul wona fésal li nga xam ni moo di kanamam moo di juste euh, daf doon bañ euh, nit ñi rek di ko xàmmee ak di daw di ko kott si mbedd yeeg yooyu puisque moom dund loolu nee nag euh, Pikine la dëkk fa la juddoo fa la yaroo fa lay yeewoo te ba léegi fa lay tëdd fa lay yeewoo ñam naan fowal lay fowal fam naan toog di naan ataaya fa lay toogee ba léegi fa lay dem di toog ba léegi di naan ataaya moom Mbathio Drissi loolu la daal di xamle nee na nag mu ngi ñaan rek affaire bi gën a dem ca kaw ca kanam li yàq jàngam nag mooy papa papam dafa demon voyage amul koo ko jëndal ay bagage fourniture am ay fourniture yu mu war a jànge du moins daal di manqué loolu nag moo yàq njàngam motax mom ci social ba mu doore ko ak fourniture scolaire diko jox xale yi nga xam sen seen i seen loxo jotu seen ginaaw mënuñu leen a jox euh, yenn fourniture way yitt yenn bagage yi nga xam ne war nañ ko jëfëndiko ci seen walu jang motax tax mu daal di li nga xam modi euh, euh, social bi ak ay ay fourniture scolaire motax mu commencer ko ñu koy ñaanal mu dem ma dem ma dem ba def ci di ci def ay social yo yu kawe ay njortam way yitt nit ñi ñëw diko jappalé bu baax baax ndax nit ki def social moom yaakaar naa ni eh, jàppale ko day nekk lu war waay it day nekku yoon bu ñu jugee ci eh, bàcc bu ñu jugee ci bàccu Dreysi dañuy lay dem ci Sadio maane rek Sadio Mané toujours ñu ngi wax ci eh, wàcce boppam waaye it Sadio nekk ku baax ko oyof ku bëgg réewam bëgg xale a si ci loolu dafa am benn fans naax boo xam ne daf ko bëgg benn xale Sadio daal dem invité ko daal di koy invité euh, ñëpp ñu bu ñu dem bi rek ñu ko te ñëwaat. But your dad told me if you play striker you only score own goal. No. Own goal. No. You sure? Sure. Then I believe you. You are top scorer. Uh, we are Liverpool and yeah? we are versus uh, another team. I don't know. from another country. Voilà, gis ngeen ko noonu. loolu Sadio Mané ndeysaan l'enfant chéri de Bambali nekk ca Casamance moom nag gis ngeen ko macha allah Sadio ñu koy ñaanal rek euh, fu mu nekk di fa football di am ay ballon door ballon d'or ballon door waaye it balaa yàgg incha allah seen compétition bi ñu daal di jël comme te indi nañ coupe d'Afrique nag ñu daal ñi indi coupe du monde rek incha allah ñëpp daal di kontaan Sénégal kontaan ambiance bi ñëwaat comme ni mu amee woon rek ci coupe d'Afrique bi kontaan nañ bu baax a baax ci Sadio Mané dañuy daal di dem ci Yaman Ndiaye Yaman Ndiaye nekk ab moom mannequin waaye moom ci fauteuil roulante moom dalaa di toog Yaman Ndiaye nag dikkaat na ci naka la ko ab mbir mi dikkee nee na rek dafa amoon benn tantam bu feebaroon amoon polio poliomyélite loolu la tante bi amoon fekk boobu xamuñu woon lan mooy feebar bi en plus euh, vaccination yi ñu daan wax ñoom dañ ko daan euh, wax naan baaxul juste rek nit ñi dañoo bëgg wàññi jur bi vaccination boo ko boo mën a am doom yooyu moo tax euh, vacciné wuñu en même temps ñoom gëmuñu woon yooyu looloo taxoon vacciné wul léegi nag tantam boobu mu dem seeti woon ndekete tantam bi euh, polio la yoroon mais moom bi mu xëyee dara jotu ko mooy yóbbu boppam mu dem jàngi jàngi ba wàcc mënatul indi boppam tànki daal di bañ mu koy wax ay koppinam wax ko ay professeur am ñu ni ko dangay ngay da ngay fontu te da kaf dóor nañ ko façon bu ne def nañ ko pour mu jug mais bi ñu xamee ni nag ah kii kat mënatul dox ci nañuy doog a jug nag ne dañoo yaakaaroon ni ngelaw daf ko dugg yooyu ñu koy faj faju olof après euh, par la suite am nañ ko daal di yóbbu hôpital médecin bi di leen carrément lii poliomyélite la médecin bi moo leen xamal ni leen poliomyélite la mu nekk nag lu diis ci moom ni ko nag li nga xam ne moo di dox bu ko defati ci sa bopp parce que dootoo ko mën a defati feebar bi dafa jàpp ci say tànk en plus bu ñu ñëwee rek médecin bi def ko opéré daal di dagg benn veine boo xam ne moom mooy yóbbu feebar bi mën a yéeg si yaram bi moo tax ba mu ko daggee feebar bi daal di yem juste ci tànk yi moo tax mu daal di toog ci fauteuil roulant mënatul dox mu nekk nag lu diis waaye it nee na nag ci la daal di takk fitam takk am fullam am jomam am nag daal di am borom kër sëy sëy bu rafet am ci benn doom yàlla daal di weddi mu daal di sëyaat am ci ñaari doom yàlla daal di weddi ndax nee na nag dëgg la waaye laagu la waaye du ñàkk kenn di du bàyyi kenn di ko ñàkkal fayda ñàkk fayda moom du ko toogee fenn te du ko xaar fenn dina muñ dina sëy comme ni mu ko waree waaye ñàkk fayda moom euh, moom la dul euh, may kenn ci loolu dañuy daal di dem ci Assane Diouf Assane Diouf nag euh, moom moom ci ay saaga nañ ko xamee ak nekk ci réseaux sociaux ku nekk mu wax la lu ne mu wax ko Assane Diouf nag mu ngi noonu ci photo bi dafa marié daal dina jël soxna daal dina jël soxna kii nag ñaareelem la ñaareelu Assane Diouf la moom Assane Assane Diouf daal dina koy takk donte sax am na benn aaw boo xam ne mu ngi Europe tudd Marika mu Assane Diouf daal dina takk soxna si di ñaareelam ñuy ñaan rek saaga yi muy def ak yooyu noonu mu bañ koo jëmale ci soxnaam ndax soxna kat yaa koy taral waaye it yaa koy sagal di leen ñaanal sëy bu baax kenn Prestige TV ak Weekend People yëpp ñu ngi koy souhaiter euh, heureux ménage bu baax kenn yàlla mbay leen aussi njaboot gu baax kenn dañuy jeexalee suñu Weekend People ak célébrité yi waaye it seeni i sañseeg seen i ak seen i photo ci loole dañuy dooree ak lii Lisa moom nag gëjoon koo gis ci li nga xam ni ñoo di réseaux sociaux yi gannaaw fan yële ba ñu ko indee woon euh, ci euh, prestige matinal ñu doon gis mu doon defaral benn jëkkëram mu doon defaral jëkkëram li nga xam ne moo universel daal di am ñu mu ci invité woon euh, defal ko surprise mu nekkoon lu neex moom nag daal dina génne biral ay photo wane nag tey africaine waaye it euh, tey sénégalaise euh, mu nekk tey noir bu rafet macha allah tey bu set daal di sol robam bu rafet ak ay photo mu yaan yooyu lii saa ñu gëjoon ko gis loolu ñu bari nag xam naa na mën nañ ko mu nekkoon ci série un café avec ñu koy ñaanal gudd fan ak wér waaye it yàlla bàyyi ko ak borom këram bàyyi ko ak njabootam ci loolee te nañ beneen ay photo shooting muy Titi Titi moom it nag Titi laal yoon moom it gis ngeen def na vert noir am bu rafet daal def ak shooting demoon benn mariage ci mariage boobu nag daal dina ci jël ay photo ñu bira ko ci réseaux sociaux yi mu nekk lu rafet moom nag elle est toute simple macha allah choix daal di jël ñaw ko ensemble bu rafet dugg ci ay presse cristal mu nekk nag lu tubaabe waaye aussi lu rafet moom titi ñu koy ñaanal bu baax titi laal yoon du jug ci duñu bégal saa su nekk ci loolu yi dañuy daal di dem ci Queen Biz Queen bis nag li may wax toujours célébrité yi bu ñu toogee laps de temps kenn gisu leen dañuy daal di solu ba yànj daal di génn photo wu daal di koy biral mu daal di indiwaat coow parce que xam nga tekk jigul ki nga xam ne moo di artiste Queen bis nag du jug toujours di wane forme am waaye it di wane yaramam xam naa rek dafa bëgg ñi nga xam ne ñoo di célibataires yi mën a déposer seen candidature wala ñu déposer seen CV genre Cheikh gi mën a déposer seen i CV moom nag gis ngeen ko noonu mu def ensemble def ballage waaye it xaaju yaram bi si kaw yëpp nekk si biti loolu lañ ko daal di euh, internet fi noonu lañ ko daal di xamle daal di moom lu jóge toujours dafa bëgg solo bu sexy voilà mu ngi noonu Queen Biz moom it ñu koy ñaanal rek borom ulelele borom xaritu Sadio Mané ñu koy ñaanal bu baax a baax la ñuy jeexalee suñu weekend people ak Zeyna Ndour Zeyna Ndour doomu euh, Viviane waaye it doomu Bouba Ndour moom nag daal dina béral itam ay photo yoo xam ni euh, euh, mu sol ci robe blanc robe bu xaw a transparent ñu gis yenn ci partie yaramam donte sax taxawul am na photo yoo xam ne ci la taxaw juste rek photo bi ngeen gis lampe bi moo xaw a bleu moo tax affaire bi leerul mais nag Zeyna solu na moom tamit sol bu sexy parfois dañ koy gis mu solu loo xam ne dënnam wala mu sol loo xam ne ay poojam dafay feeñ peut-être euh, que li euh, ay wéycuram nekk li wéycuram bu jigéen nekk artiste moo tax muy solu solu solu nu artiste noonu rek nañ ko mën a jàppe mu Zeyna Ndour ñu koy ñaanal rek yàlla bàyyi kook ay wéycuram waaye it mu dund ba di leen teral loolu yëpp moo nekkoon euh, weekend people bi loolu lañ leen indi indiloon moo nekkoon people de la semaine bi nga xam ne def nañ ko yëpp ci biir matinal bi indi leen ko fii ci weekend people la di leen sant di leen gërëm waaye it balaa boobu damay daal di gërëm ki nga xam ne moom ma daal di sol solal sama solo bu yanj bu rafet bi gis ngeen ko noonu madame jiite merci beaucoup ki nga xam ni moom ma solo muy Khalil Fashion House Khalil Fashion House nag nekk euh, di jaay friperie waaye it friperie VIP lay jaay bu ngeen xoolee li ma sañse rek ngeen xam ne Xalil moo fi génnee Xalil euh, la choix du peuple moom nag boutique en ligne la yor waaye it am na siège boo xam ne mu ngi nekk ca Dakar Liberté 6 euh, nekk ca camp pénal ba waaye it côté maxi foot bi moom foofu la nekk am na it beneen boutique boo xam ne mu ngi fii Thiès Thiès fan ci yoonu Eureka bi jàkkaarloog supermarché Marie xalil ku ko soxla mën nga ko woote mën nga woote ci numéro de Thiès bi di 77 295 99 78 numéro bi mooy bu Thiès bi 77 295 99 78 numéro bi numéro Dakar mu Liberté 6 bob 77 610 59 35 numéro Dakar 77 610 59 35 Khalifa Sen House di leen nuyu di len jaajëfal waye te di nuyu ñi nga xam ne ñoom lay liggéeyandool muy Papito sama xuloo walé waye it eh, Mayoro Ndiaye doomu day wali Balago sek daal di nuyu ki nga xam modi mam Cheikh mom tamit sama xuloo walé Khalil waxuma la dara waye ak yu Khalil ay añu Khalil ay ay salade de fruits xalil lu nekk la boo fa demee même boo jëndu sax sa xol dafay sedd ndax tellement niñ lay accueillir xalil di la ñaanal di kontaan bu baax ci sañse bi merci beaucoup kontaan naa bu baax di lu invité nag ci émission euh, weekend people bi ngay ñëw jàppale ñu ñu jàppale la nga sponsorisé ñu ñu sponsorisé la di ñaan ñëpp nag ku ci bëgg lu baax di sol lu baax nanga dem ci xalil ndax lépp lay jaay tout genre lépp loo xam ne jigéen daf koy soxla rek bu dul yële olof xalil daf koy jaay di leen jaajëfal bu baax a baax di remercier madame Jiite di ko sant di ko gërëm ci réalisation bi waaye yitte élage merci beaucoup di leen jox di dacee ba week-end bi di ñëw incha allah ci week-end people